acca euh, sëñ bi Laye Makhtar ñu ngi lay ziar. yàlla yàlla nangu ziar yëpp. yàlla yàlla jàppale leen maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam di ñaan ci màgg yàlla ak baaxu rasulaay réew mi na ñëpp ñu jàmm. ñu jàmm dul jàmm jàmm gi gën di ziar suñuy xalif généraux Pape Doudou Makhtar mi nga xamante ni tey fii bërëbu boppam la muy xalifa général des Layènes waaye sëñ Mountakha Bachir damay wax naan Sénégal am nañ ay exemplaires yu am solo. sëñ Muntaxa foo ko gis rek ndeysaan muñ ko ngay jëkk seen kon jàmm rek la woote te magum yàlla na yàlla ko fi yàlla bàyyi moo jabootu Seexul Xaddim di ñaanal sama pap sëñ Bay Si Mansour yàlla bàyyi ko pap mu laay si yàlla bàyyi ko ak xalif généraux yëpp yàlla defal leen jàmm di ñaanal borom réew mi président Macky Sall yàlla defal ko jàmm. ñuy ut comme moom it yàlla defal leen jàmm rek wax xamante ni moom mooy bisu anniversaire am mu invité la fi euh, jox la siège bu nga xamante ni kenn toogu ci ndax cër bi nga xam ne jox na la ko euh, tey boo ñu doon wax seen diggante yéen ñaar. Kouthia man ak ñoom da man ak moom dañoo yàgg ba muy def semaine culturelle ci école yi. Mm-hmm. boobu il était plus jeune boobu xale la man tamit xale la muy toog suma kër ci taatu gerte tubaab bi di ma xaar suma biir kër gerte tubaab moo amoon ci biir kër ga boobu ñoom marko ak gaayam yi la doon àndal ak ñoom Moussa bi théâtre ak Moustapha bi di théâtre tey ñoo bokkoon benn group may ànd ak ñoom muy ñëw suma kër ci Cambérène su ma yeewoo tooga moom di waxtaan ba yàlla may kër yi Kouthia li mu am ni bettu ma relation boobu laa seq ak moom jiitu na tey événement yi xew ni te nag li am solo du soppeeku ni mu mel noonu la mos loolu rek a tax ma ñëw ci euh, programme bi ku ne xam nga ne àjjuma xat na xat nañu ñu ngi jóge ci appel sonn waaye nit ku ko jar jar na ko moom jar na ko bisam bi yàlla na ko yàlla def muy mu koy feet ay at yàlla guddal fanam te may ko wër te gën ko jubaleeg borom kër gi muy président Youssou Ndour yàlla defal ko jàmm ak sa waa ji Bouba Ndour ak Birane ak Ndiaga ñoom ñëpp ci barkeb Seydina Limaamu loolu rek a tax mu ñëw parce que euh, dañ lay dégg saa sooy def sortie wala sax ngay yore micro dañuy wax dangay ngay dañuy dégg ngay tudd kilifa diine moo xam tijaan xaadar ak lépp lu nga xamante ne daal ci wàllu diine lay yëngoo est-ce que mën nga ñoo wax sa relation ak kilifa diine oh, relation boobu yàlla moo ko jëkk santaane xam nga nit ñi nit ñi ba tey comprendre euh, li ma war ci ñoom moo war ñëpp parce que ay jullit jullit yàlla dafa ni lislaam benn buum la na ngeen ci jàppandi bu leen tàqalikoo looloo waral ma bëgg Seexul Xadiim parce que digalu suñu borom la looloo waral ma bëgg Seydi Hadji Malick ma bëgg Saadu Abi bëgg bëgg mag ñëpp ma bëgg leen parce que tey euh, kilifa diine ñun ñëpp dañoo am droit ci ñoom ñu bëgg leen comme ni ñu bëgg may wax ci Seexul Xadiim du waxuma ko pour kenn di ma jox dara parce que dëgg la ci man dëgg la ci man may wax ci Seydi Hadji Malick Serigne Babacar Sy dëgg la ci man Sadou Abi dëgg la ci man Cheikhul Ibris Islam euh, Cheikhul Thiéna ba dëgg la ci man parce que loolu li may ni ma ko war a defee noonu la ñëpp war a def parce que ñun l'islam la ñu am amuñu leneen même ñi bokkul ak ñun diine sax dañoo war a joxante ak ñoom loxo parce que maa ngi dégg ñu naan dialogue islamo-chrétien loolu ay faux débat la dialogue islamo-chrétien koy dialogue def fekk ngeen am problème parce que bu nu amul woon ak chrétien yi euh, defe naa diggante kon pacte du ñoo ñu ni may nga lax koo amul jàmm doo ko may ngalax nañu waxante dëgg kon dara amu fi jàmm rek a fi am relation boobu la am ak kër ñoo tàggatoo dañu gis euh, jamono ji nga xamante ni ci la ñu nekk ñenn ci ay ndaw ñu tàmbalee opté benn combat seen combat du leen lu dul di ŋàññi ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa diine yi tey lan ngay wax ci loolu. ah dañoo xamul adduna rek saaga ku la mag sax musiba la di leen ŋàññi sax musiba la di wax ñu lay tontu sax musiba la toog di seetaan xam ne yàlla muy jàpp dina jàpp. Euh, wax waxuma la waxu waxu kilifa diine mag magu yàlla ko la mag lii olof naan ko la mag ëppalay sagar ko la mag rek ba pare mënatoo ko fay mais ala rawatina muy seetu seexul xadim muy seetu seeti ajiment muy ñutu yàlla pire mu lay leen kii maam maam moo demoon géej mu lay leen kii maam moo puusoon géej yaa Seydi Aymaan yaa xaayisal baari ñooñu duñu moroomu kenn ku leen def moroom duñu sa moroom lu waaye na waxal lu waaye neex defal lu waay def sa bopp nga ko def lu waay am yaa ko utal sa bopp ba nan dem ba ci kanam lépp daañu ci combat incha ku nekk xam na ne Ousmane Sonko saa suñu ko woowee fit yëpp dafay dafay jóg ndax nit ñi duñu tiit ndax euh, euh, jeunes yi nga xamante ne ñoom ñoo ko topp euh, tey lan nga ñu mën a wax ci le 16 mars. ah man de dama naan xale yi def leen ndànk rek dara warul ñu tiita man de tiituma man wax dëgg yàlla tiituma tiitu daal tiit defal ko est-ce que nit doomu aadama doomu aadama rek ak lu mën a xew rek ah man daal su ma nee xale yi nañu moytu wax ju bëri baaxul coow lu bëri baaxul lu dul jàmm wax naa ko sànq jàmm ka gën te ñëpp ka moom a ah, épargne wu ma kii bàyyi ke la ñëpp ka moom comme kii ci réew mi mi ngi ci réew mi nañ ko may jàmm yow miy ut utal jàmm ba keroog ngay egg fa nga jëm parce que tey Ibou Seyni bu fekkee damay ut dara ma yàq benn mbir may xale ma génn damay toj kaar ëllëg ma yokk ma ëllëg secteur boobu su ma ko yoree naa xam ne lii maa ko yàqoon ko kon ku ko yàq du ma neex kon ñun ñëpp nañu defaroo te ñu àtte ci màndarga alayhi salaam bi yàlla mooy attaquant bu mag bi te mu atte bu la tegee ay daan di nga xam nañu gëm yàlla gëm yonent bi te ut jàmm jàmmaa lépp yàlla na dafay wax ndaw ah, lu ma koy wax de mooy li ma wax li ma wax tout à rek mooy nañu ut jàmm rek gis nga lu dul jàmm soxna si jàmmaa ko gën barke Seydina Limaamul ma lu waaye taal ëllëg yaa koy defaraat kon ñoom nañu ut jàmm rek xam ni yàlla nañu xalaat bis ba nga xamante ni bis ba nga xamante ni euh, yow rek yaay jàkkaarloog sa borom ñëpp ci yem mooy bis buñ lay takk dina dugal ci suuf amul ku ko yàlla épargne ñëpp ci yem kon balaa boobu nañu rafetal yi xew ci dëkk bi rek te xam ni Sénégal nag réewu jàmm la kenn mënu ko yàq kenn mënu ko taal mag ñi ñaan na li ñaan ba pare dem seen yoon barke seen alimam ku ko nar yàq ñëpp laa ci yemale yaay yàqu rek nañu yërëm xale yi te dimbali leen te jàppale leen parce que xale yi bëree bëri ñàkk nañu waajur amatuñu liggéey nañ leen toppatoo nag ñu yor seen njaboot bu ñu bëggee agression bi wàññeeku ak leneen wàññeeku daal yàlla na yàlla def jàmm ci àddina def ci réew mi barke bàyyi la asalaamaaleykum wa rahmatullah.